suñu mbokk journaliste yi ñoo ngi leen di sant ci seen teewaay di leen euh, remercier ci xaar bi aussi ci wàllum saytu karange màggal grand Magal de Touba édition 2023 bi police nationale teg na ay jumtuwaay nga xam ni mën nañ ko tëg jàpp ci ñaari pàcc bu ci njëkk moy li ñuy wax les opérations pré magal maanaam dispositif bo xam dañ ko tegoon pour anticiper ci képp ko xam ni da nga jóg pour def ñaawteef ala magal gi di bala magal gi di commencé benen bi moy li nga xam ni moom la ci ci pour magal gi ci boppam bu dee ci walu opération pré magal yi nga xam ni li ko comme ni mako ko moy xex ñi nga xam ni Euh, li leen tax a jóg ñoom seen bopp mooy ñëw pour indi ay jafe-jafe indil pèlerins yi ay jafe-jafe loolu inter police nationale ànd ceeg commissariat yi nekk fii ci Touba ak renfort yi jóge woon yeneen localité yi commissariat spécial bu Touba commissariat d'arrondissement bu Ndamatu poste police bu Guy Mbind commissariat urbain bu Mbacké commissariat Diourbel central bu Diourbel commissariat urbain bu Bambey ak renfort yu jóge groupement mobile d'intervention ak waa OCRTIS ñiy xeex wàllum Sinébar ñoom ñëpp dañu àndoon di def ay opération laata màggal gi di commencer weer avant màggal gi di commencer donc ci loolu jàpp nañu lu mat juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar ci ay nit ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak benn ñoom la ñu jébbal yoon ñoo xam ni liñ leen di toppe mooy ñaar téeméer ci ñoom ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent lu jëm ci wàllum sàcc jël alalu jaamu boole ci ñenn ñi boole ci ak ngànnaay juróom benn fukk ak juróom-ñeent loo lu jëm ci wàllu sineebar fukki band ak ñett yoo xam ni jàpp nañ leen ñeenti téeméer ak fuk ak juróom-benn yoo xam ni dañ leen jàppoon saytu seen identité bi ñu paree ñu bàyyiwaat leen fukki kilo ak ñeent drogue moom la ñu saisir jàpp teg loxo ñaar fukki pilule drogue bu xeetu drogue bu ñuy wax ecstasy wàllum dem beeg dikk bi sécurité routière ñetti junni ak juróom-ñetti fukk ñetti junni ak juróomi té juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk pièces la ñu saisir ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent oto la ñu def mise en fourrière ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar moto la ñu immobiliser immobiliser nañu également juróom-ñett juróom-ñaar fukk ak benn ay charrette ci wàllu accident yi. ñu ngi enregistré juróom-ñetti fukki accident ak juróom-ñeent yoo xam ne accident matériel la maanaam ay oto yu daje walla leen yoo xam dégâts matériel rek la ñeent fukk ak ñaar accident corporel ay nit yu ci am gaañu gaañu ak ñetti accident mortel ñetti nit ñoo xam ne dañ ci ñàkk seen bakkan ci wàllum dispositif bi ñu teg en place pour màggal gi ci boppam police nationale mi ngi engagé ñeenti junni ak téeméer ñeenti junni ak téeméer ak juróom benn fonctionnaire de police loolu boo koy seetlu par rapport ak li woon daaw effectif bi yokku na lu mat ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñaar effectif boobu mi ngi composé li ko composé c'est le commissariat spécial bu Touba ak ay secondaire am waa commissariat bu Diourbel commissariat Mbacké renfort de renfort direction Ocrotis waa direction de la surveillance du territoire ak unité spéciale et ak brigade prévotable. ci loolu ñoo ci également un dispositif boo xam surveillance euh, électronique avec ak euh, ay drone ay caméras de surveillance pour gën a yombal liggéey bi walum plan de circulation bi manam dem beeg dik bi préfet bu Mbacké dafa jël ben plan de circulation bo xam commencé nañ ko appliquer tay bi minuit joté bi 0h joté donc plan bobu suñu éléments yi ñoo ngi sur le terrain pour fexé ñu appliquer ko correctement pour nit ñi mëna dem ak dik bu amul ben jafé jafé pour Touba ak Mbacké ñong fa def ñong ko ñong ko dag en 13 secteurs ci 13 secteurs yoy amna juroom ñenti poste de police avancé poste de police avancé yi mooy permettre nit ñi buñu amé jafé jafé quelque part ñu bañ dox lu soré pour dem commissariat donc dañu jël police jegeel leen ko motax ñu def ay poste de police avancé poste de police yoy ñu ngi nek poste contrôle mbar ya amna ben station MK bu Daaru route de Guédé route de Darou Mousty grande mosquée gaar ba kër sëriñ ab Lahad Mbacké entrée Mbacké yeneen ñaari post police yi nga xam ne ñu ngi nekk Mbacké ñu ngi nekk Santhiou Darou Salam ak jàmm gën mission police nationale nag lenn la mooy saytu nit ñi ak seen karange xeex lépp loo xam ni wàllu ñaawteef la assurer dem ak dikk bu yomb pour pèlerin yi teg dispositif fep fo xamni nit ñi dañ fay dajaloo pour assurer sen sécurité manam lu mel gare gare ferroviaire yi xam ne ren dañ ci bolé train bi muy convoyer population yi depuis Thiès donc gare ferroviaire yi teg nañ fa dispositif yu am solo marché yi euh, mosquée yi euh, jàkka yi jumaa yi yooyu yëpp teg nañ fa dispositif bo xamni mi ngi saytu dispositif bi ngeen xamni mom ngeen gis ñu sol en tenue am ay yenen élément yu nekk ci biir yo xamni solo ñu tenue surveillance électronique bi ak drone et caméra de surveillance donc police nationale mi ngi remercier di ñaanal population yi ci collaboration ku ci am dalul sa xel nga wala nga commissariat wala poste de police wala poste de police avancé bu la pour def déclaration bu boobaa ñun li ci war daañ ko def incha allah pour que ñëpp màggal ci jaamu ñibbiwaat ci jaamu bañ a am benn jafe-jafe